Fall 2 yaa ngi may daaj ci sama xol bi kat fais attention doo toog lan la yow doo toog fais attention toogal rek leen xanaa dangaa bismillahi rahmaani rahim barke wa ma baynakum nuxrujukum guppa guppa guppa faada guppa waaye man guppa lëfër lëfër boo dugg ci kër wax nañ la nga léemu ko ndax moo lan nga fi fekk yàlla naa fi fekk jàmm rajax waaw ah, fii moom nu mu demee nii rajax rajax salaamaaleykum. waaw kooku la. ah waaw waaw yow boobu ba léegi yaa ngi may dégg muy nuyoo. waa kii kana mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm kay ah namoon naa la de alhamdulilah mon ami mon frère yaa Diop yaa a ngi nii waay man maa ngi nii wayu man naa la wayu changé nga léegi de kañ lañ di gisee yàgg na lool mu ma naan man samba ma samba ndeysaan eh, ay waay ma samba ma samba ay eh, waay darajay si ci mbiicu réecu doo fàtte nag loolu laay fàtte si ci mbiicu réecu si ci la ko day eh, seen nag xam nga ni loolu taala boo amee gat ko nga koy maa ngi nii yow doo fàtte leen du ma fàtte dara ci ah. àdduna alhamdulilah alhamdulilah mbaa yaa ngi ci waaye ku la woon fii waaw maa ngi nii rajax dinaa la xamal leen maanaam maanaam waa dëkk ba yóbbante nañ ma ci yow mbaa jàmm la yow li ma yóbbante ci yow lenn la lan fàtte nga sa cosaan ah fàtte ma gis nga nit liggéey bu mu neex bu ndakaaru neex bu adduna neex ba nga fàtte sa cosaan cosaan képp ku ko fàtte rek fàtte nga loo xam si lu bokkoon ci yow la te cosaan dafa bokk ci nit nañu dem Diop waa dëkk baa la wax loolu ñoom wax ah, wax nañ lu leen leerul de waaw wuy ma nag waaw lii si lii tëdd nii mel moom lu mu doon lii lan la nii hmm. bul tudd non ah, am na ah, am lan la kii la ci kër gi rek kii du gàtt ñaaraan ci de eh. yaa saaxu Ibrahima Baba Lamine Dias laaj laaj toog toog bàyyi li ngay def yow yaa ngi doog a di yow ana yow ana ma rek sa jikko bii depuis ba ngay gone ba léegi nii nga mel yow yow doo mës a changé waaw waaw doxal rek waaw doxal ma dugal la ci néeg bi rek doxal ci sekkaram dëgg ah. daa manqué góor daa manqué lan góor wutal ko wutal ko borom kër rek Diop Diop doxal fan moo fan la néeg bi fan la waaw doxal doxal waaw doxal rek doxal rek waaw xamal leen barke bi yow man xeam la kabar kii man kii jox ma ko ma jabaroo ko waaw Diop doxal ba nga noppalu yaa ngi doog a yegg si waaw ah! yow kañ nga yegg si ak kañ ngay commencé tooñ <laughs> ah doxal waay yow it nag. ah tegal seen léegi. tegal la waaw tegal la léegi kon moom laa waxal. ah ndegam damaa dëkk si kay tegal seen. ah nga jóg xam yow. eh eh Diop. Diop yaa ngi may daal ci sama xol bi kat fais attention.